billaahi amoo ay conseil barki Serigne tuubaa Mbacke amoo ay conseil man sama jëmmu bopp rek di dix ans ci ginnaaw am na lu ma doon def loo xam ne du bonte maa ngi koy réccu moo tax ma ne la billaahi amoo ay conseil bu ñu toogee vingt ans dix ans ci kanam billaahi di nga toog weet jooy merekul a deful dara rangu arsif yaa ngi fi su newee jeex su bëree jeex képp koo xam ne gisoo vidéo bi rangu def maa ngi lay ñaanal yàlla ci at mu bees mi fexeel ba bul ko gis parce que rangu juutu nañu rangu juutu nañu rangu juutootoo sa yaay ak sa papa rangu léegi senegale yi ngay juutu rangu il est temps pour ñu wax ak yow rangu il est temps pour ñu wax ak yow rangu barki démb invité nañ la plateau télévision en plein public nga taxaw carrément ne waaw dama neex dama saf di dëggal li nga wax rangu sa doom bu jigéen wala sa doom bu góor man xam naa ne képp ku xes juddu ba pare yow amatoo kersaam rusatoo ko respecté too nday respecté too baay yow yaay doom yooyu nga xam ne léegi dañu leen bërngal booleetuñ leen ci liste bi mais am na loo xam ne ñaaw na su bëree jeex bu néewee jeex daray àdduna jaru ko surtout jigéen rangu lii lan moo ko jar génn di juutu di wangeeku di sol ay soutien gauche di def lu la neex di n'importe quoi te kenn du wax da ngay xaar ba sénégalais yi fàtte nga doog a ak sa sinab di def di n'importe quoi am na loo xam ne c'est de la yabaaterie rangu lenn li yabaate la respecté woo jigéen muy ki la jur respecté woo yaay respecté woo papa yow zama fu ngay demee maanaam sa marketing la sa business la pour ni ñi di wax ci yow yow jiñ nañ jiñ nañ la site prono as na laaw ñëpp di ci wax ñu denc la ci ñu ne déet li erreur la ñu bàyyi mu génn nga continuer di dëggal liñ la doon jiiñ lépp lu bon lañ doon teg ci sa ter der bi rek da nga continuer di ko dëggal amoo dawoo ci saala yaay ndeer mais billaahi di nga toog mere ku la deful dara rangu di nga toog wéet mereku la deful dara rangu rusal ñi nga xam ne juddooguñ parce que xale buñ ne ko bésan ci biir bési day yaakaar ne tabaski la te fekk tabaski passé na rangu sa doom bu góor wala sa doom bu jigéen vingt ans ci kanam bu juddoo ba toog ñu génneel ko vidéo waxuma vidéo ay juutu sax man barki dem bu sol nga benn lakos boo xam ne xale jigéen ñi sax ñu ngi lay commenter naan la yére mënoon naa ñàkk yow képp kuy jigéen rek da nga koy rusloo képp kuy jigéen femme de valeur da nga koy teg gàcc te pourtant am na ñuy def sa business bu mel nii te meluñ ñi nga mel yow am na ñu la ëpp ëpp ëpp ëppale ëppale audience ci réew mi di voyager partout travers dans la monde te meluñ ñi nga mel boo yaakaaree ne taat moo lay tax a tabax ay kër. taat moo lay tax a doon milliardaire taat moo lay tax a mel ni Jay-Z wala Beyoncé taat moo lay tax a yóbbu fi dem fi Rihanna dem tu te trompes nax nga sa bopp. rangu denjal say taat kenn bëggatuta am doom mu nekk ci milieu showbiz bi à cause toi rangu lan la qu'est-ce qui se lan lañ la def ba ñuy juutu lan lañ la def lan. lan lañ la def ñun lu la sénégalais yi def ba tax nga di leen.